na jom la rek fulla ak fayda euh, bu ko neexoon mu ne xëy na mm-hmm. dagg nañ benn loxoom il va lâcher le coup mais c'est pas le cas defu loolu mm-hmm. koy ñaanal rek borom bi gën ko kàttanal mu eggali jàngam te am liggéey bu baax incha allah incha allah mi ngi noonu ci leneen dañuy àddu euh, jëmale muy euh, mbirum RTS nag ndax wolof dafa ne ku ñëpp tifli nga tooy mu mel ne ñoom jamono ji sax ñëpp ngi leen di critiquer par rapport ak seen ay information yi nga xam ne ñu ngi koy dugal ni gi semaine ba la ñu génn sax nag àllarba bi dañu dugaloon ab euh, defoon ab reportage andi woon nañ ko fii ci toile bi mhm. euh, di xam ne ni dañu def ab reportage di xam ne ni sax après la pluie c'est le beau fii ci Ndakaaru gannaaw fa la ñu demoon reportage ca Pikine mhm. def euh, reportage boobu la sax wër réseaux sociaux yi wër réew mi mhm. ñëpp doon di ko ñaawlu waaye mu mel ne sax mbir mi dafa mel ni am na lees waxul ndax réeroo xaw naa am bu ñu gisee image bi ci télé bi ndax euh, fële gannaaw euh, après la plus c'est le beau ñoom ñu le mu mel ne euh, ci plongeon la ñu nekk jamono ji ndax féey la ñu fa nemmeeku ci lu la alentour RTS mu doon photo boo xam ne tamit wëraan na réseaux sociaux yi bañ leen di njaay ko kokkali ñoom waa RTS xam ne ni sax la ñu waxoon mu mel ne ñoom am nañu tontu gi seen kanam buntu kër bon je ne sais pas waaw euh, fii taa na. mais fépp ay taa ah mais après, après inondation RTS déggoo li mu wax dafa def benn reportage. Mhm. pour dire que après la pluie c'est le beau temps. maanaam ndox yi taxul fan yii ah oui ah ah ah mën na amatul Sénégal. waaw beau beau temps baa ngi nii. Euh, loolu loolu français bi de. ah lan la euh, non un beau temps c'est pas ça. waaw genre ñii non ñoom seen. Aliou Sow ñi bind lii nii. ñi bind lii ne xëy na ay sénégalais yu doon ay xale ay xale yu doon kaañoo la lii lii lii jëmmi reportage après la pluie le beau temps expression boobu du pour lii waaw beau temps mooy quand il y a du soleil quand tout va bien mhm. voilà surtout bokkul dara beau temps mun na am sax avec de l'eau non mun na am beau temps mun am ay gëllo ndox ndox. Euh, loolu mooy cent pour cent mais ñoom ci reportage Aliou waaw c'est vrai xam man lu ne fàng kenn kenn du yow la man euh, euh, ci kii heureusement kii daf ma rappelé lenn mm. c'est vrai après taw bi mm. fii am ay inondation ci dëkk bi yëpp mm-hmm. RTS a fait dafa reportage nekk ndox bi yëpp dem na. dem na loolu taw la ndox bi yëpp dem na. ñoo ko def am waaw mais foofu la ñuy waxee na voilà xëy na benn lii lii kokkali la parce que image baa ngi wër ci dëkk bi c'est pour c'est pour démentir la ñu waxoon mi ngi noonu. que ndox baa ngi fi sa seen kër sax. seen bunt kër ndox baa ngi foofu kii. la ñemee wax nii. ndox bi. dem na Sénégal loolu la laaj boobu sàmm ndox bi dem na Sénégal yëpp. ma ne la non loolu loolu loolu ñoom ñeme wuñ ko sax parce que ils sont pas. Aliou Sow yow xanaa ni naa Aliou Sow Aliou Sow yow c'est ça non loolu. dama hmm. dafa voyagé woon. Hmm. Aliou Sow nekk fi woon loolu mënul nekk. Aliou Sow dafa voyagé woon Aliou waaw waaw waaw waaw nga kii dafa ma rappelé man mii sax. man man man kii bi par contre. tout mais man bi ma déggee. bi kii ma rappelé ma affaire bi reportage boobu je suivi. dañoo dem ci ay ma xam ni ñu def. maanaam dañoo dem ci ay ci ci ay waa ñu ne la amul y' a pas d' inondation. rue du Sañ demoon Pikine. waaw dañ ne y' a pas d' inondation ma ba ñu ne y' a pas dëgg ñu wane ay foo xam ne. Euh, man il y' a plus d' inondation loolu la bi taw yi passé. doo dégg dañu ne ne après doo dégg dem. jël fa ay image pour dire que. canalisation yi moo tax ndox. yi dem canalisation bi non man man xam la laa xalaat. mën ñoom ñoom dañu wane dañu wane fi nga xam ne ndox mi dafa dem. bàyyi fi ñu fi nga xam ne dañ. Euh, ndox mi demul loolu lañ def. loolu am lañ def. loolu am ñu xoolaat reportage. non parce que am parce que. non moom Salma leer na parce que Sénégal gi yëpp ko gisoon ñëpp gis ni mbir mi demee. ak la wax ci reportage ba bañu nañ ko ba coxo ko fii ci la toile. mais page RTS boo gisee di nga ko fekk yeneen site sax reprendre woon nañ ko ba ku nekk di ñaawlu yooyu le reportage ba maa ngi déglu sax euh, fii ci plateau bi ñu ngi doon wax ni journaliste bu demee sur le terrain moo war moom moo war a xool la mu fekk foofule gis ubbi ay bëtam imposé ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yónni ci terrain bi xam ne lii moo fa am waaye boo demee nag gis Sénégal yëpp taa ni jël ay gaal ñi dugg ci ay frigo pour traverser nga ni foofu amul ndox aussi sa reste à léegi nag comme Sénégal euh, euh, amul ndox euh, taw na mais tamit lii tamit kaala tamit non moom dafa seetaanul reportage woon ak mhm. mhm. bi ma xoolee bi ma kii waxee laay rappelé ci reportage boobu. oui mais mais mais reportage boobu c'était pour faire euh, plaire euh, au président de la République. merci c'est-à-dire. yaa ma euh, neex naam Sénégal bu tawee. am na fuy dem am na fu baree fu dul dem. moo ëpp fi dul dem moo léegi nag ñoom fi fi fi dem fi dem la ñu wane lañ wane def ay quelques li ñu waroon def mooy wane ñaari béréb yëpp ne béréb sàngam euh, foofu euh, taw na taw bi malgré euh, doole taw bi ndox bi dem na mais béréb sàngam ndox baa nga fa ba tey te eh, il faut eh, mettre ay dispositifs nécessaires boo dégloo reportage di nga comprendre. reportage foo nga déglu ko. non c'est que li tax ñu wane benn côté bi rek te wane wu yeneen côté yi. loolu la mi mi mi ñoom soxlawuñu ñu doon dem bu ñu génnee seen buntu kër rek. gis nañu se sont rendus à Pékin et Guédiawaye voici le reportage. Après la pluie, le beau temps, la quantité importante d'eau reçue par Dakar et sa banlieue n'a pas perturbé la quiétude des citoyens. Les travaux d'assainissement sont passés par là. voilà mais lii non déet mais attends non d'accord la li propagande la xam lii ndox ñu def ko nii. <laughs> mais ñoom li leen intéressé xam nga mooy lan non déglu leen ma rek. non xam nga xam nga xam nga propagande non la non li ma wax lu leer la. dama ne ñii xam nga la lañ def. Mm. dañu ne ñoom. dañu wane benn ay bërëb ne foofu après taw bi

ak lii nii euh, li mu li mu wax terme bi mu génnee journaliste bi waru woon génnee lii mm-hmm. moom li mu waroon def mooy après taw bi mm-hmm. dafa waroon wane béréb yi nga xam ne mi ngi continuer di di di euh, di di kii ba tey di inondé ba tey ndox baa nga fa des ba tey ak béréb yi nga xam ne ndox yi desu fa en général sax booy seet bërëb yi ay quartier Dakar Plateau la centre beek yi demee noonu moo dul am ndox ñoom bi ñuy defee seen reportage bi dañu waroon dem ba Kër Massar wanewaat béréb yooyu ndox yi fa nekk def parallèle bi si sénégalais léegi jarul ñu dem seen seen buntu kër am na ndox nañu génnaat waxaat loolu déploré xam mooy liggéey bi ñu def propagande bi ñu def une fausse propagande wane béréb yi nga xam ne te après taw bi ndox bi dafa couler ak béréb yi nga xam ne ñoo ëpp sax amaana ñoo mi nga xam ne bi taw bi amee ñi ngi ndox ba tey boo demee fekk fa ndox bi. mu mi ngi noonu mi ngi mi ngi mi euh, loolu it euh, lu samp la ñu ngi noonu gis euh, inondation bi ñoom it seen buntu kër ñu ngi xaaraat beneen reportage aussi bu ñeel seen buntu kër na mu na mu feesee ci leneen la ñuy jàll rek maxu muy rappeur yi nga xam ne dañu nemmeeku ñaari fan yi sax ñu nekk di waxante yu ñaaw ak xaxarante ci réseaux sociaux yi rawatina sax Facebook ndax kii la di nit dof moom dañu ko invité woon ci benn plateau fa euh, turu Fata El Presidente di xam ni sax moom moomule Fata ab euh, complexe la bu euh, wax benn moo te dugal ci anglais te képp kuy artiste da nga war a jëmmal sa sa culture sa wolof ar na ngay waxee yooyu la yëpp maanaam jël ay kadd yoo xam ne daal gàll na ko ci kaw ndodd Fata waaye mu mel ni Fata moom it Euh, bàyyiwul benn yoon mu mu sedd ndax euh, tontu na ko tontu bu saf sapp xam na ni sax moom moomule nit dof euh, na réglé peccam te xam na ni moom moomule defu fi lu fi nit deful xamu fi lu fi xamul te wootewul lu fi nit wootewul kon nag na réglé ay kalma te toog xam na ni moom it Uh, moom nit dof na na teg place toog place am xam fañ ko teg mooy fan. Mm. loolu it mu doon uh, mbir moo xam ne sax jamono ji mu ngi def tout réseaux sociaux yi man man pànk fataagu bees gi man daf maa jaax en tout cas Moussa xam ci moom. tontu mais normal ah fu man euh, euh, ñu ngi ñu ngi si seen si si seen manina. Mm. Euh, rappeurs yi ñoom lii. c' est vrai que moom daawul tontu moom Fata. Mm. yàgg dañu ko clash. Mm. même si genre musical bi mu doon def. Mm-hmm. bañ naan deful rap du rappeur donc euh, mbalax lay gën a def. Mm. léegi pratiquement musique biy dox yëpp maanaam wala boog forme rap biy dox maanaam musique euh, rap biy dox yëpp li si ëpp li Fata di doon def. Mm. moom la ñëpp di def. donc boo ko tey bugguma di lim mais moom la ñuy def. damay respecté euh, ki nga moom mooy nit dof parce que moom am na ligne moom li mu gëm si hip hop li mu gëm si rap. mais fi ma dul d'accord ak moom mooy lu fekk que Fata di làkk maanaam lu mu wax boole si moo anglais mm. loolu laa dul d'accord ak moom parce que moom boo xoolee si lu mu sol rek da ngay gis ni mm. il s'est pas habillé en sénégalais wala moo xam euh, américain lay gënul la leneen yooyu am amul sens quoi pour man amul sens yooyu maxu xam nga xam nga yii nii ça veut rien ah, dire xam nga li ñuy wax nii ay dit ay solo bi fii ay làkk déw mais da ngay mais mais c'est quoi le problème xam nga la mooy réew xam nga la mooy importance su réew mooy déw bi nañ ko développé gars yi am ay gars yi bëggee mm. kontaan ku nekk def lu ko neex am liberté di dem di gën di ñëw di voyager yaa ngi dégg. Mm. Ah, nañu bàyyi ay làkk anglais làkk mais man maa ngi làkk français man maa ngi ah, dama ko reyante man waaye lan mooy problème boo làkkee ay mots français làkk moyen de communication kese la ce n'est pas ça acte yi ngay posé mais booy yëpp xool yëre yi sol ak mbaxane yi sol américain yi ñoo ko defar. waaw yi ñoo ko defar. booy nit dof li mu sol nii kan moo ko defar. non il faut que s'arrête làkk làkk ça c'est dans le comportement c'est dans l'esprit c'est dans l'amour qu'on pour son pays mooy lan xam nga xam lu tax mu may sonal nii. Hmm. man samay doom dañ bu ñu jógee fii bu ma yéexee tuuti ñu jël taxi dem Touba. Hmm. man samay doom su ma yéexee tuuti rek pour yóbbu leen ñu loué taxi dem Touba te samay doom allemand la ñuy làkk ak français waaye léegi lan ngeen bëgg. Hmm. boo déggee li soxol bi day jeex ko parce que danaan mais ay làkk mooy lan te xale yooyu Serigne Touba lañ gëpp surtout ku mag ki te léegi bu ma yéexee tuuti laa wax ñoom ñooy loué taxi dem Touba. pour yóbbu leen parce que duñ ma xaar yéen du fa ñëwaat waaye te pourtant ay ay kii lañu dañuy dañuy làkk allemand la ñuy làkk ak français lan mooy làkk làkk ça ne veut il faut qu'ils sachent ki lay xas loolu yére bi mu sol ak seen yi mu sol booy américain yi ñoo koy def. Mhm. ñoo koy sol. 57 ay loolu xam nga lan la. Hmm. il faut ngeen gëm seen bopp liggéeyal seen réew li baax ci àdduna bi ngeen dem jëli ko. indi ko seen réew. parce que bëgg ngeen ay oto rafet hmm. mënu leen ko defar. Hmm. bëgg ngeen ay climatiseur mënu leen ko defar bëgg ngeen euh, jasneer mënu leen ko defar te pourtant yaa ngi koy sol nañu reyante defar yooyu suñu réew Sotiba amoon na fi amatu fi Sotiba amoon na fi amatu fi lan ngeen liggéey yéen lan ngeen fi defar issue du pousse sax mënu leen ko defar <laughs> noppiwul ndax moom it euh, tegaat na ko place am ci leneen la ñuy jàll euh, euh, Salma foofu dañuy gaawantu rek ndax gannaaw ci lu ñeel entretien bi nga xam ne Youssou Ndour moom amaloon na ko ci li mu wax ci pàcc yu bëri waaye nag ci li ñuy gën a jàpp tey mooy ci lu ñeel mbiri Sadio Sadio maane maa ngi naan Sadio Maajo sax ndax Sadio Mané moomu le ca la mu dem fële ca Bayern moom rafetlu na ko te xam na ni Aliou Sow maanaam ni bi Sadio Mané di demee bu demee ca yi dana ko fa fekk ndax moom jaar na fa mm. euh, te it euh, xam na nañuy doxalee kon loolu yokkute la ci moom te it sax bu fa demee dinañ gën a xam ñun kan mooy suñu champion kan nañu am ci réew mu doon nag ay kadd yoo xam ne kàddu yi rafet na mm-hmm. génnee ko ba yeneen ci ay euh, sit reprendre ko mu doon kadd yoo xam ne yu yu yu rafet la mm-hmm. ci leneen rek Salma comme waxtu wi daf ñu xooj dañuy jàll àddu jëmale ci leneen Serigne bu baaxee rek ñu waajal extrait bi mm-hmm. foofu allez-y vite li li exemple man Mm. c'est-à-dire man lii ñoom nañu xool naka la ñu mën a représenter le hip hop seen seen sénégalais mm-hmm. ba indi ñu indi ay raaye mm-hmm. wala bokk bu ñu génnee ñu ni ñii de doomu Sénégal la ñi xamul Sénégal xool carte bi wala ñu xool kii bi di xool fan la Sénégal nekk. Mm. ba peut-être sax xëy na tourisme bi mën si mën mën si soxaliku. pour man mm. euh, li li moo ëpp solo. Mm. Euh, ñu ñu ay tiraillement suñu biir. te daf ñuy tardel daf ñuy tardel. voilà ñu jeexalee rek euh, Gomis ci mbirum fédération sénégalaise de football Aliou Sow mu ngi ci wax léegi bëri na la ñu ci wax millions yeeg cinquante millions yeeg terrain yi ak demalante sax ba ci chauffeur yi di di dem yooyu it yëpp. lépp lu ñu découvrir la waaye nag leneen lu ñu fay gis ndax dëkk bu mel ni Sénégal mu ngi noonu ñu nekk champion d'Afrique wala ñu bàyyi rek ñu xool extrait bi bu rek bu ñu paree ñu ñoo commenté vite fait Euh, tey nag ñu ngi fii ci buntu euh, fédération sénégalaise bu football waaye nag la moo tax ñu ñëw fii ci buntu fédération bu football pour wan leen image bi dañu gis ni fédération sénégalaise bu football ñafeel nañu ba ñu am coupe d' afrique ñafeel nañu aussi ba ñu qualifié li nga xamante ni mooy coupe du monde waaye nag tey sénégalais buy jaar fii VDN bi jëm Dakar wala nga jëm Foire sa xol day naqari ndax lan euh, li nga xamante ni moom mooy liy wane ni fii fédération sénégalaise bu football la boo fi jaaree guddi doo mën a xàmmee lii lan la ñu bind ndax aération seen de football la ñuy bind aération scène de football yeneen lamp yëpp dafa brûlé kon nag fédération bu ñuy wax fédération FED bi dafa brûlé ération de scène Euh, de football moom mooy feeñ mais yeneen lettres yëpp nga xamante ni moo nekk ci biir kii bi dafa effacé wu kon nag lamp yi ñoo burle xaw ma dafa baaxul xaw ma lan la mais nag Sénégal war na dépassé fii lu toll ni fédération sénégalaise de football lamp yi nga xamante ni moom moo war a leeral kuy jaar ci télé bi xam ni fii mooy fédération de football lamp yi burle ba da ngay gis ay aération weddi gis bokk ci gis nga F bi ak D bi ak euh, F bi ak e bi ak D bi dafa effacé wu. mais noonu. ñu am coupe d'Afrique qualifié euh, fële ca coupe du monde meilleur entraîneur Aliou Cissé euh, Rastafari mm. ah ak it euh, meilleur joueur meilleur espoir ci réew mi ñuy dégg nag lu lu lu rafet ci lu ñeel suñu sport national rawatina football bi waaye lamp fédération sénégalaise de football bii moom dañ ko dul defar. Mm. <coughs> Ah? <coughs> <coughs> Euh, merci Aliou Sow xaalis bi yëpp dem na ci maanaam ay prime ay titre de voyage ay. waaw boo xoolee ñoom seen bilan. Mm. loolu rek moo ci nekk de. bu ko titre de voyage defar na ko Matar ba defar. <coughs> prime ku nekk day am man xam la laa xam ci prime man dama xam prime koo xam ne moom mooy football waaye prime ab dirigeant bu ñuy jox ay prime. mais ñoom xanaa duñu ay bénévole lan mooy bénévole. man de wax ci làmp yi voilà xam naa ko nee naa léegi gis nga lii. gis nga bii bii bii bii enseigne bii bii bii bii bii man maa taxoon ba ñu def ko ci. xam nga lan la woon lépp amu fi yoo xoolal dafa màbboon ñu toog ay mois defuñu ko defaruñu ko ma toog petit déj du ma maa ngi nii ma toog petit déj ah. ma wax ko ma ne leen lu toll ni fédération eh, xoolal eh, kii bi ñu ñëw taf tafe ko def def defar ko mu ngi nii kii fédération bi marché bi lii kan kan lañ jox marché <coughs> la ah, quoi dañ ci waroon gis ay image yu rafet ay ay Sadio Sadio Mané koy romb chaque jour fii ñoom faale wuñ ko sax. xam nga pour tëj wax bi pour mun a dem xam nga lii yëpp li ko andi lenn la. Mm. te naa ko wax mu neex leen naxari leen transparence mm-hmm. moo amul ci fond yii di dugg ci footballu Sénégal nañu waxante dëgg. Mm. transparence bi tant que amul. yi ngeen ci gis. mais dama bëgg dégg nga dégg nga. Ablaye Fall nu may def ah, bu xoolal léegi non en fait non ligue de fii laa leen mekk di fii leen indil xaw ma kii bële du indi naa ko fii. Mhm. ma ne leen ligue yëpp yow fédération yaay. baaxul mu ngi indi ay kii naka ngay defalee ay kii nga dem yow nga dem tabaxal ñaari euh, euh, euh, Kaffrine ak kan Kaffrine ak ak Fatick dem tabaxal leen ay puxut. Mhm. nga comparé ko ak bi Ablaye Fall tabax Diourbel. Ablaye Fall dem tabax. piscine boo xam ne am piscine am am héberge salle d'hébergement am lépp. ci xaalisu boppam ci xaalisu boppam mi noonu. waaw yow na la ah? seen deuxième match ci stade ngi noonu euh, jërëjëf di sant rek euh, lamp yi nga xam ne moo nekk buntu fédération sénégalaise de football nañu dimbali ngir yàlla defar ko ndax ñun ay champion lañ mi noonu. Mm-hmm. gërëm la Salma jaajëfal la mm-hmm. euh, gërëm mbokku téléspectateur ak internet yi doon safoo leeru jamono teew lu it ñu ngi leen di gërëm dara Diop boo jàppatee télé bi di seetaan del déglu li ñuy wax boo gën ngay xool. <laughs> maa déglu dafa am ñoo xam ne dañuy ah, xool <laughs> d'accord di apprécier waale. Mm, waaw bi noonu yàlla baax na. ayca donc euh, ñuy jaajëfal jaañ naa sama yaay ju baax ji ah, donc ñu <laughs> jëli ji tout de suite musique.